organisation mais tout se passe bien vraiment euh, weesu na sama njort sax euh, amul benn incident dans le bureaux tout est bien organisé dafa naan daal bu ñu continuer ni à 18 tout sera fini et incha allah yàlla dina def li mu war a def. violence bi ñu fi doon dégg avant si euh, campagne yi est-ce que yaakaar nga ne tey dara du am est-ce que message de paix bi ngay lancé. waaw li ma jàpp daal mooy état jël na ses responsabilités état jël na ses responsabilités. mais xam nga moom am na jikko boo xam ne boo ko amee moom du dañ mukk donc nañu xaar fii ak 18 heures rek dans tous les cas l' a pris ses responsabilités ñun aussi jël nañ suñu matuwaay y' a pas de problème on va voir nga yaakaar tey di nga gagné 23 tey à 18 heures nga nekk maire bu bees bu Médina. Euh, xam nga man ab julit la ab julit la te vraiment muy sama mbégte ma bokk si askan boobu waaye donc. mënuma wax leneen dul incha allah waaye ñun suñu victoire pour ñun c'est assuré amul benn problème. alors tey boo gagné tey lan sa premier pas. Médina waay ñoo bëgg changement Médina waay bëgg coppite si Médina ni mu mel xulloo ŋaayoo saagante defe naa dañu bëgg nit ku dal. nit koo xam ni vraiment am na expérience de la chose publique mu ñëw yore Médina ñu doxal ko. ak xale yéen gis ngeen xale ni ñu mel si man. man damay tooñ léegi Martin ne ko sas boobu sax daf daf daf ma yéem fi nekk nii <laughs> mais dans tous les pense qu'on a les épaules pour porter tout ça. premier pas rek bi ngay posé boo nekkee suba tey mën nañu wax suba boo nekkee maire tey sa premier liggéey sa premier xeex sa premier liggéey xam mooy lan woo waa côté bële xale yi nekk côté bi ak waa côté bi boole leen ñu organiser show bu mag loolu mooy sama premier liggéey. nekk xale yi dëkk fële. ñoom ñëpp ñu woo leen woo suñu xale ñu ànd ñu taxaw biir centenaire ñu ñëpp ñu def benn show benn meeting. loolu loolu monsieur le maire monsieur de tous les Médinois. aucun problème monsieur le maire dañu gis ni déedéet non non non kon yow kon yow man suba maa ngi wër au contraire moi j'ai été surpris de voir des jeunes les jeunes ñooy voté ñoom ñëpp dañ dañ naan ma nii monsieur le maire xoolal ñoom ñëpp voté nañu non loolu dafa jum non nit ñi moom xam nga gars yi xoqatal lu ñu mënoon donc xoqatal na nit ñi ba xëy na xëy na am na ñoo xam dañoo xawoon ragal waaye gis nañ tout se passe bien nit ñi ñu leen woo nañu génn ñoo voté calmement et puis retourner dans leur maison y a